gouvernement bi dañ naan dafa une campagne de désinformation qui touche le le le, le Sénégal euh, concernant les événements de 2021 euh, les événements des 1 et 3 juin euh, yi ñu yi ñu passé euh, Pastef a sorti un un, un mémorandum Euh, pour attirer l'attention euh, des Sénégalais et de la communauté internationale sur la sur les sur la responsabilité euh, du gouvernement du Sénégal dans cette situation-là. Alors, au niveau du Parlement africain, est-ce que vous avez été saisi pour des pour des éclairages parce que semble-t-il yow porte nga dossier bi foofu. waaw xam nga njëkk naa la wax ni que Parlement panafricain ndaw soo si def moom laa tur moom ci boppam. moo ma dimbale ba ñu international man c'est moitié international de combat de Adji Sarr maa ngi saluer peut-être les activistes euh, de la diaspora et tout ça man maa dem toog ak ñoom ñu gis télévision bi comme ñuy gis nii ah image du Sénégal rayante bi te ñu mun a lan la what happened my brother ma ne ko du dara benn xale bu jigéen bu ndaw a ndaw moo doon liggéey fenn am ku góor gu fa boo xam ni député la bàyyi ba guddi couvre-feu bi ñu ñuy gis seen bakken ñëw foofu ndaw si ne dafa egg ci moom ak yu ñaaw a ñaaw léegi nag ba ndaw si porté plainte mu jóg sa guddi ga tëkku magistrat yi tëkku état bi ne dañ ko complot léegi nag actuellement moo indi coow li mu ne ma yéen seen dëkk jaaxle mu Sénégal mais Sénégal moo suñu référence droit de l'homme yow mi nekk fi kay xam nga ni ñun fii Zuma président Ibrahima moo leen daaneel affaire jigéen du sax ay siif ay jigéen mais seq ak ñoom rek kooku problème la yow lan nga ma def ma ko man li ma bëggoon sax d'ailleurs moom ngeen dimbali parce que li ma jaaxal yéen bu tubaab yi ñu jóg àddina bi topp leen loolu complexe mais yéen normalement war nga mën mën a moom noonu ñoo ma defal pétition ñoom seen bopp seen caucus des femmes jàmm appi ba noppi international ko def ko à la plénière ba noppi dama léegi daañu def sax d'ailleurs maa la koy rappelé Adji Sarr jeexagul ci moom parce que ñoom ñoom ma dama ñoom ñoom daañu ko daañu ko defal une journée internationale Adji Sarr day mais comme ni ñu ko defee tubaab bi ak iranien yi mu daañu jël benn journée Afrique du Sud ci boppam foofu la koy defee invité ko mu ñëw toutes les télés du monde taxaw ñoom ñu taxaw de pétition comme quoi que y a une violence faite à une femme sans défense kooku moom ci ji waa ji ñëw la quoi mais loolu moom c'est pas c'est